mu mel ni kon loolu symbole la buy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent la bu nga xam ne mënuloon bind mënuloon liir waayante nag ñu ñu fi tuddee boroom xam-xam yépp moo leen jàngal waaw imaamu Malik moo daan jàngale ca jàkkee Medina daan na wax ne man damay juum keneen ku dul man dafay juum amul kenn ku yàlla muccal ci juum ku dul boroom rawdu bi mu di yonent bi sallallahu alayhi wa koo xam ne mënuloo bind mënuloo liir te raw ñépp koo ko kooku ma yàlla la loolu jagleel la bu mu defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Quraysh dox nanu te moo di yéefiri màkk yi ñu ngi ànd ak ñetti junniy soldaar ñu ngi ànd ak itam ñu ñuy tuddee al ahabish nee na nag di tax ñu tuddee ko soldaar yooyu àndoon nag waa Quraysh nee na benn turu montagne la bu nekk ci suufu mag ñu ne déedéet li tax ñu tuddee leen ahabish moo di dëppoo gi ñu dëppoo ak booloo gi ñu booloo pour bëgg a faagagal lislaam fay ko benn yoon yuriduuna li yutfiu nuur allahi bi afwaahihim yàlla nee na ñoom de takkatoo nen pour bëgg nam ma fay sama leer te man yàlla li ma nar bëgg ko moo di sama leer continuer ba faw mu mel ni kon banul mustaliq ak ñeneen ñu dul ñoom jóg nen pour jàppale waa Quraysh wante duñ ci am ndam ndax yàlla namm naa jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom nag dox nañu ba agsi Uhud ñu ngi agsi bisu àllarba tombeek fukk ak ñaar ci weeru shawal toog neen fa àllarba alxemes àjjuma nee na boobu nag jullit ña ñu nga Madina di diisoo ndax dañoo war a génn dem Uhud xare ji wala dañoo war a xaar yéeféer yi ba ñu fekk si leen Madina wante naafiq bu mag bi ñuy wax Abdallah ibnu Ubay ibnu Salul moom li mu wax yonent bi moo di ne bul génn Madina toog fi toogal Madina bul génn buñ la fi fekkee nga xeex ak ñoom wante ragal rek moo taxoon mu wax ko ak i pexe waaw waaye conseil yonent bi taxul wante lenn ci saxaaba yi ñoom bi yonent bi diisoog ñoom dañ ne ko nanu génn dem xeex waaw ñun daal bu ñu sañoon dañuy génn dem xeex wante yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw si gi daal dafa mel ni moo Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ñoo dëppoo ci wax ndax yonent bi def na leen umkuthu bil madina sax leen madina bu leen fi génn su fekkente ni yëfiri fekk si nanu ñu xeex ak ñoom jigéen ñi sax daleen mën a participer ci xeex bi ku am sa xeer sax sànni boobu nag madina tabax nañ ko tabax yu baax fexe neen ba mu am sécurité tabax yi dëgër na te itam dugg ca dëkk ba jafe na wante yonent bi sallallahu alayhi dañul saxaabaam yi di ko ñaan rek ne ko nanu génn amoon na jullit ñu nga xam ne ñoom fekkewuñu woon badar te itam ñu ngi doon géeju beneen xare am ba ñu génn ba mën ca amee yiwu yàlla gis nga jullit ñi bu njëkk ñoom fa mu gën a méttee rek fa lañuy ñuy gën a wutee yàlla ñoom ñu ngi doon géeju xare am ba ñu génn joxe seen bakkan ci yàlla te dund gi yëpp ñu jaay ko yàlla ñoom nag ci ñi gënoon a eh, lakkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mu génn ci la ñu bokk ñoom jullit ñooñu nga xam ne fekkewuñu woon badar te bëggoon a fekke daal xare boo xam ne danañ ci amee yiw wu rëy wu li waa Badar am wala bokk bu koy koy dab dabaatal nee na yonent bi sallallahu nekk na ci loolu nekk na ci loolu ànd ceeg saxaaba yi ci diisoo boobu ba yàlla dogal daal mu gis ne daal génn daal xëy na moo tane yàlla mu ngi jàpp njàmburam waxul dara waxu ko génnal waxu ko toogal ko génnal waxu ko toogal ndax léeg-léeg yonent bi eh, dana soxla lool yàlla wax wante yàlla day jàpp njàmburam ndax yàlla machi am la am choix boppam la am choix boobu nag faale wu ci kenn yonent bi jékki-jékki rek ne ah kon naa génn foog naa ne daal comme diisoo naa te al istichara aynul hidaaya bàyyil ma génn ci la dugg nag biir néegam daal di sol nag mbubu koŋam wekkoo jaaseem daal jël nag mbuusu fettam sànni ko ca gannaaw ga daal di génn nag taxaw bi mu taxawee nag ba jullit ñi gis ko ndekkee am na ci jullit ñi ñu waxtaan ne ah, ñun kat li ñu def du teggin yonent bi kat bëggul woon a génn wante ñun mën mën leneen ko ba mu génn léegi nag bu génnee nanu ko wax ne ko daal na seetle li dal xelam mu def ko bi mu génnee ñu ne ko ah sang bi nga jéggal ñu de ndax ñun kat ñoo la pamte pamte ba nga génn wante ñu daal dañu bëgg daal li dal sa xel nga def ko yonent bi ne ah, ab yonent fu mu masaan sole mbubu koŋam ba takku ba ràngoo jaaseem jaadootul ci moom muy yebbiwaat ay bagaasam comme génn génn naa daal xare ji rek mu ne yonent bu ko mos def rek xare ji nga kon nag duma ko def mukk di duggaat ci biir nekk kon nanu génn rek bi nga xamante ni Abdullah ibnu Ubay mii di nafiq bu rëy bi gis na yonent bi sallallahu alayhi wa takku pour nar a génn daf ne ah ataa al wildaana wa asani moom de ñàkk na fayda ba topp xale yi mooy ma te kat mu ngi may xeeb waaye bu ma dégg loon ñàkkoon ñàkk a génn gi moo gën ci moom wante ragal rekk a tax mu wax ko ak pexe na naafeq waaw wante bëgg yonent bi taxul bëgg lislaam taxul yonent bi sallallahu mu ngi génn bisum bisub ajjuma bisub ajjuma la génn Medina mu ngi génn ci nisfu shawal ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na madina abdullah ibnu ummi maktum mi nga xam ne moo doon silmaxa ba ko yàlla yedde woon moom la fa bàyyi pour muy jiite nit ñi ci julli juróom yi wante bi yonent bi jógee di dem am na ay xale yu ndaw yu nga xam ne ñoom takku nañu pour bëgg a ànd ci xare bi nga xam ne lislaam mosul dañ di ànd xale yi xale yi itam mosuñu dañ di bëgg lislaam mosuñu dañ itam di yittewoo lislaam am na ay xale yu taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa ko daal fokk ñu bokk ci xare bi yonent bi am na ñum ci jox ndigal waaye am na ñum ci tere nee na Usaamatu bnu Zayd yonent bi tere na ko tere na itam abdulaay ibnu amr tere na zeyd ibnu saabit ak abu saïd alxudri ak nucmaan ibnu bachir ak rafia tere na itam sumrat ibnu jundub ginnaaw si gi nag lanu ko wax ne ko ibnu rafia ku mën a jam la te ku jub loxo la mu daal di koy jox autorisation jox ko ndigal ne ko kon nag yow mën nga ànd ci xare bi am na ci xale yi ñu nga xam ne ñu ngay jooy ndax rek bëgg a ànd ak yonent bi sallallahu alayhi xale yii nag am na ci ñu nga xam ne feeñal nañu ak njàmbaar gu rëy ci lislaam ku mel ni Usaama tubnu Zayd ndax yonent bi xale bi mujjee takk ci dundam ki mu def général de guerre ba moo di Usaama tubnu Zayd moom Zayd ubnu Xaarisa moo ko juróon te Usaama boobu mu ngi am fukki at ak juróom ñett jiite na ca itam Abu Bakr jiite ca Omar jiite ca Ali ak kibaaru saxaaba yi yëpp moo leen jiite woon ci xare boobu te boobu mu ngi am 18 ans. Euh, Zayd ibnu Thabit bokkoon na ci ñi gën a mokkal alxuraan ndax bokkoon na ci katabatul wax yi ñi daan bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñëpp ay xale leen woon yoo xam ne yonent bi moo leen formel boppam wante. Rafi' mi nga xam ne waxoon nañ ne jamkat la te yonent bi e, joxoon ko ndigal ci ne mën naa bokk ci xare bi wax nañ ne ba mu demee itam dellusiwul ndax ci xare ba la mujj faatu ñu ni yonent bi bi mu takkoo di dem am na benn mbooloo ci yahut yi ci juif yi taxaw nañu pour bëgg jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa ci xare bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj na Abdullah ibnu Ubay ne ko waaw yëf ne ko ñii nga àndal ñu di ay yahud ndax ay jullit lañu gëm nañu ma mu ne ko déedéet ñii gëmuñu la yonent bi sallallahu alayhi ne leen ne Abdullah ibnu Salul wax leen ñu toog ndax fa inna la nastainu bil mushrikina ala al mushrikin mu ne ko ñun ay jullit lañu te jullit du dimbalikoo ci ab yéeféer bu fekkee dafay xeex ak yéeféer man kat dama jóg pour xeex ak ak ak yéeféer duma jël nag ay yéeféer di dimbandiku ci ñoom di sëkkandiku ci ñoom ñu di ay soldaar yu may jàppale ci xare bi déedéet man su ma dee wut ndimbal ci jullit ni man laa koy wuti kon nag wax leen ñu toog looloo tax yahud yooyu mu joon toog yonent bi sallallahu alayhi génn wante ba muy génn ànd naag junni soldaar xoolal yéefir yi jóge màkk ñetti junni lañu yéefir eh, jullit yi jóge madina junni lañu kon ñee ëpp nañ leen ñaar junni boobu itam ba ñu demee ba ca yoon wa amoon na ci ay naafeq yu nga xam ne ñoom dañ ne woon ay jullit lanu nekk ay naafeq lanu ñooñu nag ñoo àndoon nag Ablaay ibnu Ubay bi ñu demee ba ca yoon wa daal ñu daal di wàññeeku ne yonent bi ñun daal wax dëgg yàlla dañu foogoon ne daal tabaarakallaahu da toog Medina waaye comme génn nga daal ñun moom génn dem di xare ji moom duñ ko def ñoom noonu la ñu retourné kon junni soldaar yi àndoon ak yonent bi ñetti téeméeri soldaar mujj nañu deltu gannaaw lànk na duñu xare ji te ki leen influencé du kenn ku dul dégg nga maam Abdullah ibnu Ubay yeneen eh, jullit ñi nag des di juróom-ñaari téeméer ñu nekk sept cent soldats te mille lañu woon xoolal léegi ñetti junniy soldats. mooy soldaar yi ba wa Makka di ay yéeféer yonent bi dajale junniy soldaar war a génn ñoom ca diggante ba ñetti téeméeri soldaar wàññeeku nanu ci nekk ay défaillant lànk ne dootuñu xewte wante yonent bi sallallahu alayhi wa na wax na ne li ko topp ci fas ñaari fas rek la benn fas bi yonent bi sallallahu alayhi moo ko war bi ci des ku ñuy wax abi burda moo ko war nee na Abdullah ibn Ubay mi dañul di wax rek naan moom daal asaani wa ataa alwildaan mu ne mooy ma ànd xale ya waaye nag bàyyi leen ren danañ leen leen rey kenn par kenn ba ñu jeex loolu moo doon yéeneem loolu moo doon yéeneem wante nag yàlla moom dañul di donte sax xare Uhud Euh, lu metti dal na ci jullit ñi ndax seen lim dafa néew trop trop waaw seen lim dafa néew trop ndax ñetti junni boo ko bëggee su bëggee jàmmaar loog juróom-ñaari téeméer wax dëgg yàlla foofu nga fay nekk rek wante logique amu fa ñu ni yonent bi sallallahu alayhi bi mu bi mu agsee agsi na uxut bi mu agsee uxut julli na fa suba jiite saxaaba ya ñu sàppe sàppe yu jekk nee na bi mu taxawee di julli nee na gis na ci sàppe yi yéeféer yi ne Xaalid ibnu Walid moo féete sàppe yéeféer yi ndeyjoor Aqramatu ibnu Abi moo leen féete càmmuñ waaw ki nga xamante ni nag am na ca ku ñuy wax amr ibnul aas moom dana mujj sax akrami dana akrama dana gis nga ñett ñi ñëpp ñu mujj nekk ay jullit waaye yàlla moom lu ne rek dafa fu mu koy jaarale Xaalid na Walid dana nekki jullit waaye tey mu ngi ci rangu yéeféer yi Akrama ibnu Abi Jahlin dana nekk jullit waaye tey mu ngi ci rangu yéeféer yi Amru ibnul Aas dana waaye tey mu ngi ci rangu yéeféer yi yonent bi sallallahu alayhi jiite na jullit ñi ba leen jiitalee ba leen jiitee ba sëlmal nag ci la commencé nag di leen waar di leen dëfal ndax kat mbir mi tiis na ñële bëri nanu ngànnaay seen seeni soldaar bari nanu seen alal bari na jullit ñi nag bari wuñu alal seeni soldaar bari wuñu bari wuñu ngànnaay war nañu taxaw nag tey ci barab bii di Uhud Uhud boo gisee nag ñu tuddee ko Uhud ndax daf di montagne boo xam ne fa mu nekk dafa wéet waaw mu di montagne bu rëy nga xamante ni ku dem màkk ñaare soo farloo danga ko gis wax ne ne barab boobu fa la xeex bu rëy bi amee incha allah ci ajuma ji di ñëw ci la ñuy dugg nag ci xare boobu wa radiyallahu an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 seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak euh, seen xarit euh, Valérie tabarakallahu mbokk yi ñu woon ci xare Uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xam ne defoon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan wi ñu waxtaane woon ci fàttali nit ñi xew-xew bu réy boobu di dee ak yowmal xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delluwaat ci waxtaan woowu yeggale ko mu mel ni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm lëndëm yi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laaj ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la mu war njëkk a laaj moo di ne min ay na jiitu yaani fan laa jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi di ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al axlaaq te la ñu koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu ñu ngi nuyu mbargu lahi arrahmani arrahim alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala ashrafi xalqihi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 tey dañu fas yéene rek continuer ak yéen seen siira bi nga xam ne moom la nu fi dooroon mu mel ni ñu ngi woon ci xari Uhud mu di xadwatu gannaaw ba ñu gisee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àndoon nag lu toll nii juróom fukki euh, juróom-ñaar téeméeri soldaar ndax junni lañu woon ñetti téeméeri naafeq wàññeeku ci mu des léegi juróom-ñaar téeméer tey nag ñu nga uxut yonent bi sallallahu alayhi wa takk na ñetti drapeau benn bi jox na ko awus mu jox ko ku ñuy wax Usayd ibnu Xadir mu takkaat beneen drapo pour waa Xadraj mu jox ko Xabaab ibnu Mundir ñii ne Saad ibnu Ubaada la ko jox mu takkaat beneen drapo jox ko muhaajiruun yi ñii ne Ali ibnu Abi Talib la ko jox ñii ne Musab ibnu Umayr radiyallahu anhum ajmain yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne fa lamma faraga al arad wa gabat ash-shams adana bilal bil maghrib fa salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ashaabihi thumma adana bil ishaai fa salla bihim واستعمل على الحرس محمد بن مسلمه fi xamsina rajulan yatuufuuna bil askar ñu ne yonent bi sallallahu alayhi bi mu ñëwee bi nee na bilaal noddu na timis yonent bi jiite nit ñi julli timis ginnaaw si gi ñu noddal gee mu jóg julli gee jiite ko nit wax ne ni ñi leen doon garde nag moo di Muhammad ibnu Maslama ànd ak juróom fukki soldaar yu nga xam ne ñu ngi wër jullit ñi di leen garde pour noon yi bañ leen a bett wax na ni bi mu jullee gee ba noppi wax na ne waaw kan moo ñuy pro kan moo ñu mën a garde nag ci guddi gi ñan ñooy sacrifié wu garde ñu ci guddi gi bu ñuy nelaw ba noon yi bañ ñoo bett ku ñuy wax Zakwan ibnu eh, Abdu Qays moo jóg sol mu bokkoonam rango jaaseem wax ne ni guddi googu yëpp moo ko gardé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taqaliwu kowul ak yonent bi sallallahu alayhi wa ba fajar nee na bi ñu xëyee suba yonent bi laaj na ne waaw ana guddi yi xam yoon wi pour wan ñu yoon wi ku ñu wax abu xaysama alxarisi moo wax ne moom xam na yoon wi moom moo ànd ak yonent bi sallallahu nekkoon guddi bi yonent bi sallallahu bi mu ñëwee ba Uxud wax nañ ne jël na juróom fukki soldaar jiital ca ku ñuy wax Abdullah ibnu Jubayr mu ne leen yéen kat li ma bëgg moo di ngeen taxaw ci kaw montagne bële di ñu garde ndax noon yi ba ñoo ñëwee gannaaw ndax dañu ne ndigal lu am solo la moo tax soo deewee ndigal doo dugg ci musiba mukk waaye sa soo wàccee nigal rek mën nga dugg ci musiba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax saxaaba yooyu ne leen li ma leen sant moo di ngeen taxaw fii rek ci montagne bi bu leen ko wàcc doonte ñu ngi rey kenn par kenn bu leen wàcc donte itam gis ngeen ñu ñun jullit ñu gañe ba yéefar yi di daw itam bu leen wàcc loolu la wax ak ñoom daldi wàcc wante bu ñu demee ba ci kanam dangeen gis ne mbir mu rëy dana am ndax jullit ñi danañu tabaarakallaahu eh, mooy ndigalu yonent bi sallallahu alayhi ba lu ñaaw dal leen yonent bi sallallahu alayhi ñëw na di defar sàppe yi waaw fu dëng mu jubbanti bi mu defaree sàppe yi ba noppi wax ne ne jël na drapeau bi jox ko Mus'ab ibn Umayr loolu mooy wax bi gën a siiw sang bi def benn xutba bu rëy daa wax ne yaa ayuha nnaas wuusikum bima awsaani bihi llah fi kitaabihi min alcamali bi taacatihi waltanaahi can maxaarimih ثم إنكم بمن بمنزل ajrin wa zuxr liman dakara alladi alayhi thumma wattana nafsahu lahu ala alsabri walyaqin waljiddi wannachaat fa inna jihaad aladuwi shadidun karihun qalilun man yasbiru alayhi illa man adama allahu lahu rushdahu fa inna allaha maa man ataa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yéen nit ñi yéen jullit yéen jullit ñi maa ngi leen di dénk li ma yàlla dénk ci téereem bi te moo di ñu jëfe ko te mooy ñu topp yàlla ci lim ñu digal moytu ko ci yim ñu tere maa ngi leen di yëgal ne képp ku nga xam ne yaa ngi ci wàccuwaayu jëf li la yàlla digal yàlla dana la fay te itam dana la dencal yool bu rëy ëllëg yomal xiyam mu ne nag képp koo xam ne sa xel mu ngi ci loolu ci payu àllaaxira ci ne yàgg yàgg dana ñëw kooku de lu situation critique critique lu mbir tiis tiis dana ci ànd ak muñ ànd ci dëgër ànd ci ak ak farloog ca warte gu sëkk ci xam ne yàlla yàgg-yàgg dana ko fay te bu ko fayee rek tabarakallahu lépp lu di coonoom wala muy naqaram dana wàcc te maa ngi leen di yëgal ni xeex ak noon yi te moo di jihaat ci yoonu yàlla lu metti la lu tiis la néew na sax ku ko mën a muñ lu dul koo xam ne yàlla baaxee na ko ak njub maa ngi leen di yëgal ni yàlla daal mu ngi ànd ak ña topp mu ne wa inna cheytaana maa man asaa faftatixu acmaalakum bilsabr ala aljihaad waltamisu bi dalika ma waadakum allah wa alaykum billadi amarakum bi fa inni xarisun ala rushdikum inna alixtilaafa waltanaazuca wa waltathabuta min amri alcajzi waldof wa huwa mimma la yuhibbu llah wala wa sallam continuer xutbaam ne leen maa ngi leen di yëgal ne yàlla ànd naag ña ko topp wante nag seytaane ànd naag ña mooy yàlla te déggal ko kon seeni jëf yu yiw di leen ko ubbeekoo muñ ci jihaad te itam na ngeen sàkku ci liggéey yi ngeen di def ak jëf yi ngeen di def la nga xam ne yàlla digg na leen ko ci pay te moo di àjjana ak xéewal yi fa nekk ak yërmande yàlla ak njëggalam yonent bi ne ma kon maa ngi leen di dénk ngeen sax jàpp ci lima leen digal te moo di li yàlla ndigle man kat ku xër laa ci seenu njub bëgg naa lool ngeen baax bëgg naa lool ngeen juboog seen borom maa ngi leen di yëgal ne ak wuute ak xëccoo nee na loolu day waral ak lott ci yéen dafay waral itam ak doyadi ci yéen dafay waral itam ak ñàkk fayda ci yéen jullit du xëccoo jullit ñi waruñoo wuute ndax seenu ko wuute ak seenu xëccoo dafay tax ñu feebal dafay tax ñu ñàkk solo day tax itam e, nooni yàlla yi ñeme leen kon nag bu leen xëccoo bu leen wuute buleen di noonante bu leen di bañante ñu ne itam xëccoo ak noonante ak wujjante ci alal ak bëgg àdduna nee na loolu yàlla bëgg ko nee na te mbooloo bépp mbooloo bu nga xam ni ñu ngi wut ndam te xëccoo nekk ci seen biir yàlla du leen xéewale ndam du leen xéewale itam ak texe ca la ñuy wut kon nag maa ngi leen di moytandikuloo ak wuti mu ne yaa ayuha nnaas xadadun fi sadri anna man kaana ala xaraamin faraqa allahu baynahu wa bayna wa raxaba lahu anhu gafara allahu lahu damba wa man salla alayya salla allahu alayhi wa malaikatihi asharan wa man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fa alayhi aljumaa yowma aljumaa illa sabiyan aw imraatan aw maridan déggal ne yéen nit ñi képp koo xam ne dafa nekkoon ci lu xaraam ba jikki yàlla tàqale la ak lu xaram loolu bañ la ko na nga xam ne yàlla jéggal na la sa bàkkaar képp ku doon def lu bon ba jikki lu bon loolu nga xëy rek bañ ko bëggatuloo ko jegeetuloo ko defatuloo ko te di jullit na nga jàpp ne bañ googu nga bañ lu bon yàlla dëgg na ci jéggal la sa bàkkaar mu ne kon bañ leen lu bon bu leen ko jege mukk bu leen ko def mukk mu ne képp ku nga xam ne julli na ci man nee na yàlla dana julli ci moom malaakaam yi itam danañu julli ci yow fukki yoon kon dee leen julli ci man ndax julli bi ngeen di julli ci man dafay yokk seeni yiw dafay yokk seeni tiyaaba mu ne képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bis pénc ba maa ngi koy dénk mu muy julli jumaa waaw su amul benn ngant na dem ci jumaa ji julli ji julli jumaa bañ di tardé ajjuma ndax toog ñetti fan yoo demul ajjuma rek musiba bu rëy la yonent bi nag nee na ku gëm yàlla gëm yonent bi gëm bis penc ba nee na maa ngi lay dénk ngay julli juma nee na lu dul xale xale moom bu ko neexee julli ji bu ko neexee toog ndax jumaa waru walla jigéen jigéen bu ko neexee julli ji bu ko neexee toog ndax juma waru wala ki feebar ki feebar itam amee na ngant kooku mën naa bañ a julli ji juma wala jaam bi nga xamante ni dafa nekk ci moomeel kooku itam juma waru ko bu ko neexee dem bu ko neexee toog mu ne ñu dul ñii nag waaw ñu dul ñii ma fi lim rek yonent bi nee mu ngi leen di diggal pour ñuy julli ji juma. mu ne képp koo xam ne séddoo na yàlla gedd àdduna séddoo yàlla nee na séddoo na ku rëy séddoo na daj dëpp gi ki nga xam ne ku ko am am nga lépp moo tax yonent bi ne kon xamuma benn jëf ju baax boo xam ne dana leen jegel seen boroom lu dul ba jëf boobu def naa ko ngeen gis ma wax ko ngeen dégg loolu lépp bëgg rekk ëllëg taraangay yàlla yi bañ leen a ump mu ne itam xawma bépp jëf bu nga xam ne jëf ju bon la joo xam ne dafay tax nit ki dugg safara lu dul ba jëf boobu teet naa ko moytandiku ko digal leen itam pour ngeen moytandiku ko maa ngi leen di yëgal ne jibril mi nga xam ne moom la yàlla di yónni muy wax ak man te moo di ar ruuxul amin nee na ñëw na ci man nee na ma amul benn bakkan bu nga xam ne nee na yàlla wër jox na ko wërsëg lu dul ne wërsëg woowu dana ca jot lu jiitu muy faatu mu ne kon nag lu wërsëg wa yeex yeex yeex nee na bu mu tax mukk ngeen jaay seen ngor ba dugg ci lu xaram waaw ndax bisu tey bii di ajuma kenn mënta fexe ba mu nekk àllarba àjjuma rek lay nekk wërsëg yàlla dogal ne moom nga ci war a am kenn mënta fexe ba nga am ci beneen wërsëg bu dul wërsëgu àjjuma wi nga war a am tey jeex na kon nag wërsëg wi war a ñëw suba mënoo fexe ba mu ñëw tey waaw kon nag yàkkamti jot seeni wërsëg bu mu tax wutin wa ñaaw bu leen ci jaay seen diine bu leen ci jaay seen ngor moo tax yonent bi nekkoon wa ajmilu fi talabi rizq na ngeen rafetal nu ngeen di sàkko wërsëg lii lépp saxaaba yaa ngi taxaw ci front bi jàkkaarloo ak yéeféer yi ñu war a xare xare uxut diggante bi ci la yonent bi def xutba bi pour waar saxaaba yi nga xam ne dundam yépp jàngale la woon mu nekkoon nag yéexug wërsëg bu leen xiir ci mooy yàlla qad bayyana lakum alxalaala walxaraam gayra anna baynahuma shubuhan min al amr lam yaclamha kathir min annaas illa man asama allah faman tarakaha xafida irdahu wa diinahu wa man waqaca fiha kaana karraaci ila janbi alxima awshaka an yaqaca fiih wa laysa malikun illa walahu ximan ala wa inna ximallah maxaarimu walmuminu min almuminina karras min aljasad ida shtaka tadaa ilayhi saairu jasadihi wasalaamu aleykum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continué na xutbaam nee na yéen nit ñi wax naa leen wax naa leen li xaraam wax naa leen li dagan xam ngeen ko lu dul ni am na ay lënt yu nekk ci diggante bi nag lënt lënt yooyu kenn xamul araam na kenn xamul dagan na waaw nit ñaa ngi ci sikk sàkk te xaraam gaak dagan ga nag ñu bari ci nit ñi xamuñu ko am na ñu bari ñu ko xamul lu dul ña yàlla ñu ngal mu ne wante lënt lënt yooyu ku ko jàppee lu xaraam ba moytandiku ko nee na kooku de ñoŋal na deram ñoŋal na diineem waaw léeg nga gis ko léeg nit ñi di discuter ci cigarette ñi ne dafa xaraam ñi ne xaraamul waaw léeg nga dégg ñu ne ñëwul ci alxuraan xam nga ko kooku kon danga koy dugal ci subuhaat yi nga xam ne lënt am na ci araam na wala araamul ñu ne bu fekkee ku sellal nga yow doo xool araam nga ak ñàkk araam nga comme daal du am na ci ndax neex na yàlla wala neexul yàlla yow bëgg goo bëgg yàlla ak cofeel goo am ci sa boroom ak ñoŋal goo bëgg a ñoŋal sa lislaam ak xir goo xir ci ak mbaax dana tax loolu ñuy dute di ci sikki sàkk ndax baax na wala baaxul nga ne ko fa ñukk ni tege waaw yonent bi nag nee na yooyu ñuy dute ndax baax na wala baaxul nee na ka fa bàyyi nag nee na kooku ñoŋal na deram ñoŋal na diineem nee na képp ku nga xamante ni nag dugg na ca nee na xaw naa dugg ci yi xaraam waaw mu ne nag buur bu ne rëdd nga say frontière tëral nga say loi am na noo bëgg doxale sa nguur mu ne rawatina yàlla mi bind comme buur bu ne rëdd nga say tabarkàlla say loi am loo bëgg ci sa réew ak ci sa nguur am yoo ca bañ lan ci bëgg ña ko def nga fay leen jëflanteeg ñoom ci njëkk ña ko jàdd nga tëj leen yar leen ni ko buur i àdduna yi amee rawatina yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo tax mu ne wa laysa malikun illa wa lahu ximan ala wa inna ximallahi maxaarimu mu ne nag yàlla moom nee na ay frontière mooy yi mu xaraamal mu ne yéen jullit ñi na ngeen nekk benn xam ne yéen ñépp benn ngeen ndax aadamaay seen maam te aadama ñu ngi ko bind ci suuf kenn gënul kenn arab bi bumu ne maak yonent bi bokk xeet kon maa gën ku dul arab déedéet borom der bu weex bi bumu wax ne man kat sama der bu weex bi moo tax maa gën ku ñuul ki déedéet yàlla nee na gënante daal wàllu xol ci ragal yàlla rekk la gënante nekk wante bind gi ma leen bind seeni der wuute kooku sama philosophie bopp la man yàlla firiloowu leen ko man la neex rek ma bind kii mu ñuul bind kii mu weex bind kii mu jaune bind kii mu xonq kon nag yéen jullit yi na nekk benn jàppoo ndax yàlla benn buum rek la am mu di buumu tawxiid di buumu lislaam waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu mu ne jullit bu ne nanga xam ne bu lislaam bi dee benn jëmm nee na yow jullit ba yaay bopp ba ñu ne kon nag lislaam jullit ñépp bu ñu àndee di benn di benn yaram nee te aw yaram cër bu ca metti cër yëpp yëg ko bu baaraam bi dee metti bopp bi yëg ko tànk yi yëg biir bi yëpp ko tabarkal la sa cër yëpp yëg ko mu ne kon nag su fekkente ne yaram solidarité booboo fa am rawatina nag jëmm jii di jëmmu diine lislaam benn jëmm rek la nee na cër bu ci metti cër yëpp yëg ko kon nag na ngeen fexe ba jullit bu am naqar na ci ñëpp jàpp jullit bu am mbégte na ci ñëpp jàpp mu mel ni loolu la yonent bi sallallahu alayhi wax daal di tëje waxam nag ne wasalaamu aleykum jàmm yàlla gi yàlla na ànd ak loolu la tëjee discours am ñu ni wa awalu man anshaba alxarba abu amir abd abdu eh, amr fi xamsina min qawmihi maa ubayd quraysh fa naada yàlla aws ana aamir fa qaalu lahu laa marxaban bika wala ahlan yaa faasiq fa qaal laqad asaaba qawmi baadi shar فتراموا بالحجارة ساعة ثم ولى ودعا طلحة بن أبي طلحة إلى البراز فبرز له علي رضي الله عنه فقتله فكبر المسلمون وسر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ñu ne ki nga xam ne moo njëkk a door xeex bi moom lañuy benn yéeféer la bu ñuy wax Abu Amir nee na dafa woo waa Aws ne leen man la Amir ñu ne ko la xaban bika ko ahlan yow yowkat yaataluñ la te jàppewuñ la mbokk yow ku bon ki yow kàccoor bi nee foofu sànnante neen fa ay xeer waxtu nee na gannaaw si gi nag la daw ànd ak mbooloo ma mu àndaloon nee na bi nga xamante ni def na mu baaraza ak Ali ibnu Abi Talib ñu léwatoo nee neen Ali ibnu Abi Talib ndërmeel na ko rey na ko ci saa si nee na ko rek jullit ñëpp kàbbar yëkkati seen jaasi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog kontaan na ci rey bi ñu ko rey nee na jigéenu yéeféer yi ñu ngay way ñu ngay encouragé seen góor ña di tëgg seen tabale di wax naan naxnu banaatu taariq namshi ala namaariq in taqbalu nu aaniq aw tudbiru nu nu nu faariq firaaqa gayri waamiq mu mel ni jigéen ñi ñu ngay wane seenu njongama pour pour rek xiir seeni jàmbaar ci ñu wane ak njàmbaar ci xare bi ñu ne xare am na ci ñennat ñu nga xam ne wane neen ci njàmbaar ndax am na ku ñuy wax Qazmaan nee na waaye la ju nga xam ni ku ñu siiw woon ak njàmbaar la ci moom moom nag mu ngi bokkoon ci rangu jullit ñi doon xeex wante taxul woon nag mu nekk mu nekk jullit ndax dafa tardé woon jigéen ña xas ko yedd ko ne ko daal yow góoru wat nga sa moroom yépp nekk ca foron ba di xeex nga toog fii nee na ci la dab si nag gannaaw si jullit ñi daal di ñëw nag bokk ci sàppi jullit ñi di xeex wante daal ab naafiq la woon nee na bi mu ñëwee nag wane na njàmbaar gu rëy nee na mu ngay xeex mu nga yuuxu di bëmb ni gëléem di bëmbe wane jaloore yu rëy rey na juróom-ñaari jàmbaar nee na wante nag nee na jam nanu ko ay jam-jam yoo xam ne jam-jam yu metti la ci xeex bi nee na am na ku ñuy wax xataada tub nu xataada tub nu naxmaan mu ne ko yaa abal yaa abal gaydaaq hani an laka ndax jam-jam ya dafa metti ba Qataada foogoon na ni dootu ci dundaat nee na mu woo ko ne ko yow abal gaydaaq te moo di Qazmaan mu ne ko maa ngi lay ndokkeel ci shahid bi nga nar a am ndax yow mii kat nar ngaa am ak shahaada nar ngaa dee ci lislaam kon nag ndokkule ndax jullit ñi bu njëkk dee ci lislaam ndam bu rëy la ci ñoom ñu ne Qazman daf ko tontu ne ko inni wallahi ma qataltu aba amr ala diin mu ne ko giñ naa ci yàlla ne diine lislaam taxuma xeex mu ne ko ak rëy rekk ak jom-jom lu moo ma tax di xeex ndax jigéen ñaa ma xas nee na foofu nag la jële jaaseem daal di koy jam boppam daal di xaru nee na bi ñu ñëwee wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko diw de wane na ak njàmbaar ci xeex bi rey na juróom-ñaari jàmbaar te itam gis nañ ko ni mu doon xeexee waa ji daal tabaarakallaa commencé di ko tagg wante nag jam-jam yiñ ko jamoon moo metti ba tax daal dafa mujj jël jaas yi daal di koy jam boppam dafa xaru yonent bi ne na min ahlin naar yonent bi ne comme dafa xaru daal mu ngi bokk ci waa safara kon nga dégg ci ne kon ndeke xaru baaxul ndax nit ki lu sa ngëm wér wér lu say julli bari bari saa boo demee ba di njëkkanteeg yàlla sa bopp rek yàlla génn ci yow moo tax ñu ne ko xaru rekk dugg safara donte jullit nga moo tax ñu ne yonent bi ne inna allaha yuayidu hada diin bi rajuli alfajir yonent bi ne yàlla diineem ji kat léeg-léeg dana ko dëgëralee waaju kàccoor waaw wax na ne inna allaha inna allaha yuayidu hada diin bi rajuli alfajir maanaa yàlla léeg-léeg mu fekk waaju kàccoor waaw mu fexe ba liy dëgëral diine di ko defar yàlla jaarale ko ci moom waaw léeg-léeg loolu am su ko defee nag dangay ngay nga gis ñu ne tubaab yi dañu baax leen nangam ak nangam waaw wante léeg-léeg tubaab yi ci seen bopp yàlla tàggat leen l'islam bi am ay intérêt ci ñoom te intérêt yooyu l'islam daf koy jël ba mu jeex te du tee ñoom ñu dee ci kéeféer nekk yéeféer loolu xikma yàlla waaw loolu xikma yàlla mu mel ni kon loolu moo dal xasmaan mi ndax xare na rayal na jullit ñi ay jàmbaar dee na ci kéeféer waaw ndax ba muy xare nëbboon na ak kéeféer ci biir ndax ab naafiq la woon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa moom ak jullit ñi jël na drapeau moom drapeau jox ko Mus'ab ibn Umayr mi nga xam ni moo représenté muhajiroon yi ñu ni yéeféer yi nag seen drapeau Talha moomu ko yoroon Ali ibn Abi Talib na ko gannaaw sigi doomam ju ñuy wax Abu Shayba moo ko jël ci moom abu shayba usmaan ibnu talha xamzatu ibnu abdilmutalib daal di koy daal xeexak moom ray ko ñu jëlaa drapeau ba jox ko mbokkam ma abu saad ibnu abi talha saad ibnu abi waqaas daal koy sànni fett rey ko nee na ku ñuy wax musaafi ibnu ibnu talhat ibnu abi talha daal jël drapeau ba ci moom dégg aas ibnu thabit ibnu abil eh, aqlax daal di koy déng rey nee na ah ku ñuy wax itam xaaris ibnu talxata daa di jël drapeau bi ci fa ramahu aasim aasim daa koy sànni wat fit rey ko nee na foofu nag la seen yaay sulaafa sulaafatu sulaafatu saad ibnu eh, shuhayd moom moo nizar ne kii nga xam ne moo rey sama doom yi de danaa naan ci kàngu boppam ma ndax moom kat mu ngi bokkoon ci jigéen ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak yéeféer yi nee na mu nekkoon képp ku ma ko reyal dana ko jox téeméeri gëléem nee na seen drapeau bu noonu drapeau boobu noonu leen ko doon awante nee na wante ñoom ñépp rey nañu leen kenn par kenn ba nu mat fukki jàmbaar yoo xam ne jàmbaar ju ci nekk remplacé nga sa moroom ci jël drapo bi mais jullit ñi rey la loolu rek defet bu rëy la ndax drapo ba coomo daawu ko jël nee na am na ñu wax ne juróom-ñaar leen waayante daal nee neen fukk la ginnaaw si gi ku ñuy wax nee na jël na ko benn xale la woon ci ñoom nee na mu ngi dëkkoon Éthiopie nee na ab jaam la woon ba mu ko jëlee ñu dagg loxo ndeyjoor ba mu taawuwaat drapeau bi ci càmmoñam ñu dagg ko nee na mu daldi nag mujj toog ñu daldi koy rey nee te kat Xasmaan mi nga xamante ni wax ne ne moo doon naafiq bi moom moo ko rey léegi nag yéeféer yi daal di daw ndax daanaka amatuñu benn pexe ndax xare Uhud commencement bi yëpp nga li pour jullit ñi la nee na jigéen ju ñuy wax bintu alqama alxaaris yi nee na moom moo yëkkati waa drapeau bi téye ko nee na ci la nag yéeféer yi daal di retourné nag kon mu mel ni drapeau bi ginnaaw ba mu waddee ci jàmbaar yooyu ab jaam moo ko mujje gannaaw jaam boobu nag jigéenu ko mujj waaw kon daal bu jàmbaar bu bu bu bu jàmbaar ya dawee ba mu des fa jaam yaag jigéen ña nga xam ne kon nga ñaay am na nee na moo tax xasan xasan saabit mi nga xam ne moo doon géwélu yonent bi sallallahu alayhi wa way na wax ne faxartum billiwaayi wa charru faxrin liwaaun xiina rudda ila soabi waaw mu ne yéen a ngi puukare woo drapeau xare nee na te bonn ci puukare puukare woo drapeau boo xamante ni ay jàmbaara ko yoroon ba mu mujj ci jaam rawatina sax mu mujj ci jigéen moo tax mu ne lawla liwaau alxaarisiyati asbaxu yubaacuuna fi l aswaaqi bayca mu mel ni rek xasan ubnu saabit u anhu ku ñëwoon làmmiñ te itam ku daan tabarkal wax ci làmmiñam ay way yu yéeme la way yu nga xamante ni suñ ko masaana yëkkati xolu jullit yépp sedd xolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sedd ñu ne wa ma dafara allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam fi mawtinin qat ma dafarahu wa asxaabuhu yowma uxud xataa casaw arrasula wa tanaadacu fi l amr laqad qutila asxaabu lliwa wankashafa almushrikuuna munhadimin laa yalwuun wa nisaauhum yadcuuna bilwayl bacda darbi dufuuf walfarx walakin almuslimina ataw min qibali rumaat fa in almushrikina lamma nhadamu wa tabacahum almuslimuun yadacuuna silaax fihim xaytu shaau ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngañaay gi ko yàlla jox ci nee na mosu ko am ci benn xare lii nag ci njëlbeenu xare bi bi nga xamante ni yàlla dogal na yéeféer yi daw bàyyi fa jigéen ñi jigéen ñi itam talatuñu tëgg nee na seen pénc daal di tas ba ñoom ñëpp ñu daw ñàkk yaakaar nee na benn occasion rek la jullit ñi am la yéeféer yi am te moo di ña yonent bi tegoon ca kaw montagne ba daf leen waxoon ne leen bu leen fa wàcc doonte sax gis ngeen ñu ñu gañe wala ñu ñuy rey kenn par kenn bu leen ci montagne ba taxaw leen fa ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ku xamoon mbiru xare la ku xamoon itam dégg nga position xare la looloo taxoon nag mu bàyyi ñooñu foofu wante e, wuute am na te waxoon na ci biir discours am ne jullit ñi waruñuy wuute wuute am na ndax am na benn wax bu nga xamante ni am na benn saxaabi bu wax ne ah nanu dem jël ci màng yi ndax bu fekkente ne xare am na su fekkente ne jullit ñi gañe nanu jaasi ya cay wadde ak fétt ya ak xeej ya ak fas ya ak lépp luy arme rekk ñoom dañ koy daal di njëkkante ji loolu la ñu tuddee alxanaim suñu paree dañu koy séddoo loolu nag lu neex la ci xare léegi nag am na ci jullit ñu wax ne xare bi jeex na gañe nanu kon nanu dem nangu ji ci màng gi wante am na ñu bañ ne yonent bi sallallahu alayhi kat daf ñu wax ne bu ñu fi jóge nanu fi toog ndax ki nga xam ne mooy seen amir di Abdullah ibnu Jubayr lànk na ne bu kenn dem ndax sang bi lim ñu digal moo ñu toog wante ñépp bàbbeeku neen dem fukki nit a fa des ak moom bi ñu demee nag di jël ci màng gi ci la benn yéeféer bu ñuy wax Xaalid ibnu Walid xam naa sax yàlla dana ko baaxe ak ngëm ci kanam moom Xaalid nu walit moom itam ku ñawoon la ci wàllu xare baayam yéeféer bu bon la woon ndax mooy Walid mi nga xam ne moom la yàlla di xas ci suuratu nuun wal qalam Xaalid ibnu Walid ba mu gisee jullit ña wàcc ca la wax ne point bële bu ñu ci occasionné wul daneen ñu gañe kon nag nanu wiiri yéeg ci ko montagne bi suñ ci yéegee ñañ fa fekk danañ leen rey bu ko defee nag ñu mën a nag ndar képp jullit ñi moo ànd ak quelque nit ñu daw nag bi ñu dawee rek dal di ñëw fekk fukki nit ñooñu ak seen amir ba di Abdallah ibnu Jubayr ñu daal di leen di rey Abdallah ibnu Jubayr moom rey nañ ko rey bu metti ndax rey nañ ko rey bu nga xam ne wax nañ ne xotti nañu biir bi ba ca tabaarakallaahu jumbox ba wax nañ ne génnee nañu sax ay butitam sànni ko ci biti ngir rek mer gu nga xam ne yéeféer ya ëmbaloon leen ko jullit yi ci xare badar ndax jàmbaar yañ leen fa reyaloon euh, loolu nag metti na ci gis-gis ndax loolu bu ko dalee itam yooyee ndigal rekk moo ko teg bu ko dalee itam wuute bu am ci diggante jullit ñi moo ko ko teg ndax bu fekkoonte ne la leen yonent bi wax moom ni mu ko déggee noonu la ko ñooñu déggee amaana loolu du am wante nag ni ñu ko waxee woon rek ñoom dégg ndigal ak jaamu yàlla la te itam dee ci xare dafa nekkoon victoire ci ñoom dafa nekkoon ndam lu rëy ci ñoom moo tax ku masaana dee ci xare dañ lay ndokkule waaye kenn du la ndokk ndax yaramam woowu ñu yàq dafa mel ni koo xam ne dafa tabax këru juróomi million ay saay-saay ñëw bàyyi ba guddi ñu toj kër ga yàqu ko ba kër ga yàqu gannaaw si gi yow mi ñu yàqal sa kër nga am jaaxle lool waa ju baax daal di ñëw jox la këru téeméeri million defe ni këru juróomi million ak këru téeméeri million wuute nanu yaram woowu ñu ko yàqal moom lañuy misaal ci këru juróomi million ëllëg àjjana ba ko yàlla di fayee moom lañuy misaal ci këru téeméeri million kon loolu ko yéefir yi def ci yaramam ëllëg yàlla dana ko fayee loo xam ni muy ëpp fuuf li mu amoon ci àdduna ci wàllu daraja ci alal ak tabarkal ci wér ci lépp kon mu mel ni rey bi ñaaw na ba tax na itam jullit ñi jaaxle léegi nag Xaalid ibnu Walid rey ci jullit ñu bari ak ña mu àndaloon jullit ñi jaaxle lool ndax jaasi yaa ngi leen di jóge fu ne ñu mujj ñoom ci seen biir sax ñu ngay reyante da nga gis jullit bu rey moroomam te du ko tey lu tax ndax yéefiree dañ leen a ndar képp wër leen ci wàll gépp ndax benn point rek moo leen jaaxaloon mooy montagne boobu ñu taxawoon léegi bi leen Xaalid ibn Walid dikkee gannaaw yéefiree dawoon retourné waat ñëw léegi ñu ndar képp jullit ñi ñi ëpp ci jullit ñi nag daal di daw bàyyi fa yonent bi sallallahu alayhi sallam ak ñu tuuti keroog wax ne ne iblis laanatullahi alayhi taxaw na ci kaw montagne daal di wax ne rey nanu yonent bi sallallahu wax ne ne keroog mu ngi yor melokaanu mu ngi soppaliku nit jël melokaanu jaalu bnu suraq nee na wax ne inna muhammadan qad qutil mu yuuxu wax ko ñetti yoon nee foofu nag coow li bari na ndax am nañu jànn ci jullit ñi yéeféer yi itam am nañu kontaan ndax buñ ne rey nañu yonent bi rek jullit ñu bari loolu dafay daal di daf leen di daal di découragé ci xare bi te loolu dafay nekk defes bu rëy te loolu iblis a ko def nee na foofu nag jullit ñi reyante nanu ndax wax nañ ne ku ñuy wax Aba abu zaxna dóor na ko ñaari dóoru jaasi te yëgul ne ki mu dóor jullit la ndax jaaxle rekk nee na baayu xudayfatu ibnul yamani te moo di ibnu jaabir nee na jullit ñu song neen ko ak ay jaasi di ko dóor nee na xudayfatu ibnul yamani di leen yuuxu naan leen abi abi abi bu leen ko dóor kooku sama baay la jullit la wante jullit ñi jànnaxe gu ñu jànnaxe tax na rey na nañu bàyyi xuseyfatu bnul yamaani dóor ko ba mu faatu ginnaaw bi ñuy bi muy bi muy faatu bi ñu ko reyee ba noppi lanu soog a yëg ne xuseyfatu bnul yamaani mu ngi leen di wax ne ki ngeen di rey de sama baay la te jullit la nee na ginnaaw si gi nag fekk na réccu passé na ndax góor gi faatu na foofu nag la xuseyfa delloowaate boppam ci yàlla ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daal wax ne yaxfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin lii ngeen def sama bàyyi te muy jullit de yàlla bu leen ko yàlla jàppe yàlla na leen yàlla jéggal ndax yàlla moo di borom yërmande nga gis ne jullit ñi gëm gu dëgg gu nekk ci seen xol dafa daan def ci ñoom sago dafa defoon ci ñoom sago ba tax na itam xusayfatu bnul yamani situation bu difficile la nekk ndax yéeféer yaa ngi leen wër ci wàll gépp ñu ngay xeex rey na nañu bàyyam ci biir xeex bi mënoon naa saalit mënoon naa wax beneen wax bu dul ñaanal jullit ñi yàlla jégal leen woo itam yërmande yàlla di ko ñaanal jullit ñi ne yaxfirullahu lakum wa huwa arhamu rahimin nee na fa zaadatuhu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa amara rasulullahi sallallahu alayhi bi di jëtihi an tuxraj nee na bi yonent bi déggee loolu bég na ci kontaan na ci daal di koy ñaanal yiw ñaanal xudayfa yiw